indaale eh, Kali ak sama bakkanu ñaari doom yi bu dee sekk naa ak gambien bi dara yàlla nañ ma teg si jaag suuli ma suba yàlla bu ma sama njariñu doom yi ndax xanaa nit booy sekk ak moom sax day fekk ngeen xamante xanaa nit du ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam nga ubbil ko sa ñaari tànk yi déggoo li ma dama ne lii bu ma ci rawee baat yàlla nañ ma robi suba bi mu dama ko dalal jox ko sama néeg ñew tok ak samay doom toggal ko mom dara um ko ci mu xey ma dem wu yonne ko ko mooy foto bobo aadamoo di tek ñu wu man ak mom man ko a ah, waji de mu ngi ni man suma nexé sax je je suis majeur et vacciné ba tass bu nexé mëna indi def luma ma neex parce que awma compte bu may rendre kenn ndax fi amna na xamné ñu ngi fi nekk nekkalé amna na xamné ñu ngi nekk ci li nga xamantene mom mo leen neex mais man xawma comme groupe la won njëkkate groupe bi photo yi ñi yonné njëkkate ñom photo yi dañ ko doon pour xaar bëss bu rafet man ma ngi ñoo dugg ci ay ñoo xam peut-être ñoom mentalité sénégalais yi nga xam moom lañ am ciow man xawma ma ñoom li nekk ci groupe bi yëpp dañ koy téye di xaar bés bu rafet xuloo wala xeex wala coow man xawma ma man tam ma nekk fa rek di ratatati des fois ma wax rencontre li parce que man kontaan naa jóge naa ci ay tubaab ñëw naa gis naa samay mbokk sénégalais kafak reetaan ak yooyu njëkkata man maa ngi dugg ci ay kayma xawma ma léegi biñ demee ba benn instant muy live buy live ñun dañuy ñëw di ko léegi boo moom boo toogee deux jours bu la gisul laay fam day mel ni ku la xaw a mere tuuti man tam ma dem ba am benn instant live bi commencé yàq sama liggéey ma commencé di am tuuti problème fi may liggéeyee ndax mënoo xëy 7 nga toog ci ay live ba une heure deux heures du ba pare dama yor ay xale ma dem ba benn instant nag mënatuma ko mënatuma toog ci ay live une heure deux heures ndax moom day toog di live ba une heure deux heures des fois six heures après moom bëccëg gi mu nelaw te man damay liggéey léegi ma toog deux jours dugguma laay fam jëkkëram woo ma naan ma lan la est-ce que problème la est-ce que lii la est-ce que laa ma ne ko noonu nekkul problème léegi groupe bi li ko indi moom da doon def ket léegi rencontre mi da cee amoon benn social boo xamante ne da doon wax ne képp ku am sa cinq euro dugalal ku am sa di euro dugalal pour benn malade ñu faj ko léegi ñu ngi koy commencé di ko may ay gaynde di ko may ay kii léegi waa groupe bi xale yi nekk ci groupe bi ñoom ñoo ko doon jëw ne moom Charlie Ba oh merci beaucoup xale yi nekk ci groupe bi di ko jëw ne moom amul xel ndax ñoom dañ koy toogal ci laay fam di ko tapoteel te ñu ngi koy may ay fleuram muy encaissé te ñoom du leen sédd man ma dégg loolu bim bi ko nit ñi waxé man mané ko ah fleur yi lay may diw mu ne ma naa ma ko ah do ci ciopati nga jënd ci ay parfum wala dara nga may ci xalé yi ni nek ci groupe bi mu ne ma xalé yi amuñ ci soxla ndax ñi Italie lañ nek ñi France lañ nek pourtant xalé yi ko wax ñi Italie lañ nek ñi France lañ nek mais téwul ne xalé yi ñoom wax nañ ko mané ko man bo bëggé sax mën na la sok amna ay cede mana ko ma jëlale ci ñett xalé ñi ma mayel leen collagen ñi ma may leen mune ma loolu duma ko def ndax xalé yi amuñ ci soxla mais dégg na li nga wax ma ko ok ñu tok ba mu yagg problème bi ñëw légui bi problème mu këndëng bi ñëwee man ay affaire social laaj xaaliss man musuma ci dox mom bu doon laay sax bay def social man damay wacc ndax man dama ko ko waxon carrément ma ne ko man ay fu ñuy laaja xaalis duma fa toog fu dajalee xaalis duma fa toog ñépp seede woon nañ ma ci loolu ndax man dama ñëw ci toog bi pour kaf ak parce que xaalis dafa saytaane dama ko ko doon wax ne ko social day yàq personnalité social day tax man moo tax bu ñuy live lu live neex neex bu social commencé wàcc naa ñu ne man dama soxor man duma dimbali waate man dama iñaan man dama lii ma ne leen ok léegi bu mu ketalee këndëng euh, këndëng ordonnance mu Cheikh Ahmed Cissé euh, euh, Cheikh ak El Bachir jox cent mille pour ñu dem ndar yóbbul këndëng ay ordonnance ak mixeur ma ne ko mu ma ne ko kii danga koo ketal ci lii mu ne ma naam ma ne ko waa léegi doo ko jox moom li nga ko ketal délégation bii nga yónnee di leen jox pas cent mille francs yi est-ce que yow doo jël xaas bi moom nga jox ko ko moom mi nga xam ne danga ko koo ketal moom mu jéem cee def li nga xamante ne moom la bëgg mu ne moom du joxe dërëm bu këndëng ne ordonnance da koy jëndal ordinance bu këndëng nee mixeur da koy jëndal mixeur mais du ko jox liquide ma ne ko nag kenn du kete noonu nit boo ko ketalee xaalis ci turam danga ko koy jox bu bu fekkee day jënd pom mu jënd pom bu dee day jënd banaana mu jënd banaana léegi moom mu ne def loolu mu jékki saay ne këndang ket bi jeex na à partir d'aujourd'hui mais dañ ñiy continuer di joxe dañuy continuer di joxe mais yow ci huit cent mille yi fii nga yem ma ne ko ah ndaamam bu ket bi continuer tam xaalisam la de parce que man boma ma dama lay wax li nga xamantene man loloy deug mana ko ket bi bu continuer mune man na naa ko xaalisam la ndax ci turum nga koy laaj kun ci turum nga koy joxe. légui nak ñu am ci problème yoyu ñu dugg appel groupe man mom ak Weuz ñepp di wax ak mom pour mu jox ng restant khalis bi mune mom moom du ko def yaayu ng dugg ci appel bi neko. diw mu ne ko naam mu ne ko tey kër gi dafa sant Guèye dama soxla woon dix mille francs pour suppal Babacar Weuze ngi ci appel bi Dex Amanda mu ngi ci appel bi El Bachir mu ngi ci appel bi ñu bëree ngi ci appel bi man duma fen mu ne ko séquma ak yéen lu ma leen di jëndalee euh, euh, lekk ak naan sequ séquma ak yéen dépense faj laa seq ak yéen Charlie Toba merci beaucoup mu ne ko faj laa seq ak yéen léegi bi mu toroxalee maire bi noonu nag léegi man nag affaire boobu dama metti boo bëggee dégg dëgg li yokk gën a tax sax ma ba lool noonu ci la bokk léegi bi mu toroxalee maire bi ne ko séquma ak yow dépense faj laa séq ak yéen ñun ñëpp di naxanteeg moom ak Cheikh Ahmed Cissé mu ne moom du ko def mu dem taala live këndëng bi mu demee taala live këndëng coow li bari këndang demaat ci beneen live di fa ket moo géet nekk fa mu ñëwaat ci live boobu ne moom ketal na këndang faj na ko bu ko kenn jox na na nii na na restant xaalis bi man mujj gi sama bopp bi mel ni luy waaj a xar man ma mer génn appel bi nekk man ci samay affaire ah léegi ñu teg ci quatre jours këndang gaañu léegi biñ ci tegee quatre jours këndang gaañu léegi ñu woo maire bi mu ne moom day delloo xaalis bi Soso merci beaucoup ma Soso d'amour léegi ñu teg ci quatre jours mu ne moom këndëng gaañu léegi mu ne moom léegi li desoon ci xaalis bi da koy jox yaayu këndëng léegi biñ defee appel groupe yaayu këndëng ne moom soxlaatu restant xaalis bi ndax bi Babacar di dund xaalis bi soxlawoon na ko te kenn joxu ko ko kon moom instant bi soxlaatu ko léegi ñu bàyyi ko ak restant xaalis bi léegi kees gi nag di continuer am na kees am na kees goo xamante ne kees boo xam ne nee na social la woon pour ku feebar ñu faj la xam nga rek ay affaire rangele xaalis yooyu xaalis dafa seytaane mais xaalis bi nag ñun dañuy waxante dëgg kees gi moom keesam la te Wave bi benn rakku jëkkëram moom moo ko doon teye ñun suñu yoon nekk si woon ma ne ko xale yi nekk si groupe bi est-ce que mën nga cee def kenn trésorier mu tëye xaalis wala dara mais foofu nag mu may commencé nag di ma tàkkale ndax xam na ne maa ngi laal fi nga xamante ne arrangé ko ndax boobu man maa ngi laal kees gi te moom bëggul ko wax ci waxu kees gi mané ko kess gi ngay jox sa rakku jëkkër muy retiré Wave bi est-ce que mënoo woon a xool ci xalé yi ci groupe bi nga def fi ben trésorier xalé may dégg ñom ñepp nga dund kenn ci man fénuma yow yaa ma laaj motax man ma expliquer la lolu passé na. légui am ku nekk ci groupe bi ku tuddu madame mbay yaayam ñu jëlé ko Sénégal mu ñëw ñu war ko fayal 3000 euros ndax jëkkëram dafa yéexoon a def assurance léegi bi mu amee problème mu 3000 euro yooyu te moom tam ci groupe bi la nekk te ah ajaratu am na kees koo xam ne kees sociale la pour ku feebar ñu faj la te da ko doon defal jàmbur yi. te ñun am nañ koo xamante ne cas boo xamante ne ci biir groupe bi la bokk koo xamante ne yaayam soxla na loolu même buñ ko mënta jox sax 3000 euros yi ah nañ xool li nekk ci kees gi après ñun ñu cotiser ku nekk cinquante euros 50 euros wala cent euros léegi bi ñu waxee loolu ne diwkat yaayam ñëw na te dafa feebar lii moom moo ko war a faj mu ne ci tonet ne kooku ah xanaa sa jëkkër defalu ko xaw ma man nekkuma itali xaw ma genre affaire yooyu léegi. ñoom xale yi ñoom ñu daal di may jël ci suuf ne ma est-ce que man duma wax ak moom mu jéem a jàppale kooku ci xaalisu kees gi ah léegi man tamit ma ñëw ma ne ko ah waaye yaayu diw mii du ñu jéem a xool ñu jéem koo dimbali ñu jéem a jël kees gi li nekk ci kees gi est-ce que doo ko génne ñun tamit ñu xool lan lañ am ndaw si nag kees gi ma tudd foofu instant boobu neexu ko léegi mu am benn capture boo xamante ne dama ko yónnee capture bu def neuf cent euros xaw ma neuf cent mille francais CFA léegi fiñ nekkee ñun ci groupe bi di wax moom mu ngi woon ci beneen groupe bi léegi man ma ne ci groupe bi ah xéewal de mu ngi waaj a am ndax diw yónnee na ma benn capture bu am neuf cent mille francs CFA njëkkate moom yolleekuwaat na ba duggaat ci biir groupe bi ne pat te man yëguma ko léegi man ma ni xale yi ah man de diw yónnee na ma capture neuf cent mille léegi man nag capture xaalis boobu ma wax mu dem kalaame ma ki dëkk Kaolack palaatu ceeb cent franc bi mu demee kalaame ma palaatu ceeb cent franc ne moom léegi dafa ñëw loo xamante ne entre man la ak moom man ma di ko